Euh, suñu nebedaay bi. Mhm. gis naa une entreprise étrangère. Mhm. bu koy jëlee fii. Mhm. defaree ko fii. transformer ko fii. jaayi ko. exporter ko qu'il faut. ba ñoom tamit ñu mën a lancer wu. ci ci exportation pourtant ñu fële la ñuy ñëw ñëw jënd ñëw jëlee fii produit. mais justement c'est ça le problème nag léegi nag foofu laay la ñuy régler problème d'emploi bi dig nga tey euh, entreprise boobu entrepreneur boobu wala homme d'affaires boobu. peut-être ñëw na investir un milliard wala deux milliards wala trois milliards am na la possibilité d'éclater ces milliards là par une forte intensification de la technologie accessible ba nga xam ne tu auras de petites unité yoo xam ne tu vas avoir des milliers de jeunes. par exemple unités yi di la jaay. avec les boutiques uniproduction ñu di ko def benn wala boog bu nekk ñun loolu la ñuy prôné. léegi industrie bi link boobu soit ñoom ñuy def produit fini ñuy def wala ñuy def produit thermifacturage thermomanufacturier nga xam ñoom dañuy def un premier niveau de transformation jox ko industrie bi comme tubaab bon comme woon lu bari mhm. euh, ci structuration de l'économie mhm. ñu ne structuration bi il faut que ñu ñu ñu ñu densifier mhm. euh, la palette euh, des PME ñu mën a créer beaucoup de richesse endiguer li nga xam ne. Mhm. Euh, moom mooy chomage bi. Mhm. Euh, créer jéem a commencer. Mhm. créer des des, des futurs champions. pour que ñu mën a euh, résorber. le le le déficit de la balance commerciale. mais gouvernement buy ñëw. depuis Abdou depuis le régime socialiste ba tey da ngay dégg PMI e, accès au financement Euh, buñ léegi sax dañ ciy boole accès à la technologie bu ñu nekk accès au financement. Mhm. mais je pense que ni ñu koy élaborer ci mhm. papier bi. Mhm. ci ci ci ci terrain bi ci réalité bi mhm. euh, dafay am foo élaboration bi di dogee boo mhm. xoolee mhm. Euh, les pays de l'ASEAN de de l'ASEAN euh, des pays comme la la la Chine le Japon la Malaisie mooy ñoo ñu xam dangay gis de micro industrie da ngay gis des PME ku ci nekk di développer ay technologies yoo xam ne léegi les grandes marques par exemple en au lieu ñoom ñu ñu ñu ñu ñu supporter des charges de main d'œuvre yu diis dañuy mm. ñëw passer seen commande gars yi livré lañ parfois j'ai vu une entreprise chinoise par exemple day livrer cent mille tenues mm-hmm. euh, d'ouvriers mm-hmm. euh, par jour à une à une multinationale mm-hmm. mais ñooñu noonu dañ leen tegal un cadre approprié euh, un régime fiscal attractif faciliter leen l'accès au financement euh, à des à des à, taux Euh, très bas. Mhm. bàyyiwuñu leen à la merci des banques et des euh, et des SF euh, et des mhm. SFD. Mhm. ba pare li ñuy produire. état créé benn chaîne de valeur boo xam ne da leen di parfois état jënd production bi. mbaa mu jàppale leen encadrer leen. ba ñu mun ko génne. lu mel noonu. très bien. ko ci réew mi. voilà loolu nag mooy politique d'économie sociale solidaire. xam nga solidaire boobu caractère solidaire boobu c'est d'abord par l'État l'État doit être solidaire à la productivité foofu nag la problème mu erreur bu bëri boo xam ne ñu bëri dañ koy def ci problème du de de l'emploi et de l'industrialisation toute industrialisation n'est pas porteur ou créée et a triche d'emploi massif. comment ça. oui sa assertion bi contradictoire na de. xaaral ma wax la lu tax on wax la lu tax xaaral ma il faut que ñu am un processus d'industrial euh, d'industrialisation dama ne tout industrialisation ne pas créatrice d'emploi massif par contre tout politique d'économie sociale et solidaire cohérente et créatrice d'emploi massif loolu la projet bi wax xam nga loolu loolu mooy rupture bi Pastef indi le projet bu Diomaye président dama lay jox exemple bu leer bu bu bu concret tey soo jëlee tey benn un très grand investissement nga ñëw créer benn usine <coughs> boo xoolee li ngay def ci investissement ci milliards lourdeur boobu ak li ngay créer ci produit intensif en quantité également war ko exporte di nga am beaucoup de richesse beaucoup de revenus mais doo regle problème emploi parce que boo jëlee nombre d' emploi yi ngay am nga jël ratio bi par rapport ak investissement bi boo jëlee investi bi avec l' économie sociale solidaire en insistant sur la technologie tu vas créer plus d' emploi que fii parce que là tu peux avoir cinq mille dix alors que là tu peux avoir un million d' est ce que xam nga ne ce qu'on prévoit évidemment avec les conditions critiques de la recherche de financement on sera à une structuration de l'emploi aux environs de un million cinq cent emplois au terme des cinq ans. am na ñu fi waxoon cinq cent mille emplois de. non waxuñu créer en <laughs> nouvelle emploi waxuñu nouveau emploi de. <laughs> ñu waxoon cinq cent mille emplois de. non ñooñu. yow nga génne fi un million cinq cent mille emplois dama ne la non on va. bu baax li ma la wax. Ah. C'est-à-dire, on va avoir des emplois, on va avoir une structuration qui nous permet d'avoir 1 million 500 yoo xam ne dañuy liggéey autour de l'économie sociale solidaire loolu koy leer na on va mettre en place des plateformes d'économie sociale solidaire mooy lan mooy link boobu ma la wax sur la chaine de valeur à l'échelle des communes commune a des produits dominants et dans pays dominants des produits dominants est-ce que am na ay. machines commune est-ce que doo leen ko régionaliser. parce que par commune dafay doon. émiettement non dama dama non dama la bëgg a wan ne. par exemple dama laa bëgg a wan ne. dama laa bëgg a en moyenne par commune d'accord nga ak man ci loolu. Euh, voilà on est à Wakam commune de Wakam xamayuma leen benn activité. en lien avec l'économie sociale solidaire moo tax ma ne la en par commune day am eh, eh, émiettement waaw fii li fi xale femmes yi di gën di def ñi nga xam ne ñoom ñooy le bassin de l'économie sociale solidaire parce que jigéen ñi ñoo ci ëpp mooy njaay mi ñuy jaay beñee ñuy jaay thon euh, dañuy jaay euh, euh, ndékki yi dañuy jaay añ ak salon de coiffure yi dañuy tëji salon de coiffure moo tax ma ne la da koy régional plutôt ko ngeen def ngeen communaliser ko. no ngeen koy dama la c'est-à-dire c'est pour des besoins euh, d'explication pédagogique moo tax ma jox la commune. mais boo defee étude technique bi tu peux euh, ban rayon ngay jël ban échelle nga koy jël mais dama la jox exemple noonu rek créer 1000 emplois par commune du dara. 1000 emplois par commune. du dara. grâce à l'économie sociale solidaire. non du dara à partir parce que regroupement la gis nga individuel yi ngay jël regrouper leen <laughs> non très bien liggéeyuñu li tax ma liggéeyuñu woon. démb avant-hier dama am réunion de coordination bi may wax ma ne leen euh, li ñu fëtee ne mooy à tout moment dañuy xel di liggéey amatul taxaw benn directeur ne vraiment euh, ne il faut que waaw loolu ñu def ko moo gën nit ñi di nekk ci bureau yi nelaw ministère ñu ngi may dégg réunion réunion la coordination lañ nekkoon am ko wax loolu mais li ñu bëgg mooy à chaque fois fii mu ne tey ñun bi ñu nekkee ba léegi agent yaa ngi ci terrain bi ñun mieux dañu dem ba ne dañuy mettre en place des volontaires de l'économie sociale solidaire volontaires yooyu nag di nga day identifier dina identifier ay jeunes yoo xam ne ndekete xamuñu woon fuñ jëm ñoom dinañ leen tënk dajale leen. organiser leen leen ñu nekk ay 5 6 10 ñu dajale leen former leen finance leen mieux. boo joxee defee foofu xaalis volontaire bi tey boo amee chaque commune nga am ko par exemple deux volontaires est-ce xam nga ne xaalis bu fa dugg dañ koy xam xam nga ne organisation bu jot xaalis di liggéey dañ koy xam est-ce xam nga ne da ngay am un dispositif de suivi digitalisé boo xam ne man sama bureau laay nekk di ko gis mais lii mooy liggéey te yii amu fi woon te ñu ngi ci commencé nañ ko tey amatul tëddale balaa ñu laa financé dañuy wàcc ci terrain bi xool jàngat ba pare teg ay critères identification yi 14 points la suñ ci paree ñu dugal quatre critères yu yu majeur yooyu ma lay wax pour doog laa mën a financer suñu lay financer dañu lay waajal ndax yow te besoin lan la parce que financement ñaar yi dafa am nit ki su la laajee financement dayo ba mu la laaj dëppoowul ak la mu war a am parce que boo ko joxee yàq nga xaalis parce amaan du la mën a rembourser bu fekkee lu ëpp la su fekkee dayo ba mu la laaj dafa yées yow mi benn jamono opération ba muy def boo ko boo ko moyee mu laaj la ko tey nga bàyyi ba fukki fan après nga jox ko ko tooñ nga ko ndax sénégalais du ne toxlu ma xaalis xaalis ku mu ñëwee nit ki am am am ci toxla foo ko waxee mu ne waaw mu tàllal yooyu nag moom la ñuy régler en mettant en place des volontaires yoo xam dañ leen di former ñu duñu toppal